réewu Qatar bi dañuy ñëw euh, ci pap mhm, pap mhm. euh, cascade de démission yi mhm. ak désistement ci dossier bi yi ñu tàmbali di gis loolu lan lay joxe ci gëtu askan wi est-ce que du dem ba décrédibiliser li nga xamante ne moo di nos corps de défense parce que gis nañu ne en ce moment dañu fa mel ne dañu leen affaiblir ndax taar yi nekkoon ci ñoom ak mythe bi nekkoon yëpp mi ngi commencé effondré wu waaw loolu moom wax dëgg yàlla vraiment day day dëggal rek li nga xamante ne moom mooy crainte bi nga xamante ne askan wi dañ ko mës a am par rapport ak suñu justice ni muy doxee boo jëlee kaaw le juge Mamadou Seck bi nga xamante ne démissionné nañ raison yi am mu évoqué mooy convenance personnelle mais ci ay xibaar jot nañu ay xibaar ne moom dafa naroon déglu Ousmane Sonko bàyyi ko mu dellu këram moo tax ñoom ñu def tout ba bàyyiwuñu Ousmane Sonko mu yegg ba pare également dañoo exercer ci kawam ay pression yu métti pour que mu yóbbu ko prison te moom en tant que juge ni mu analyser dossier bi gis na ni fii gisuma fi fee bu mérité mu yóbbu nit ki prison parce que moom bu ñu fàttali fi ñu toll ni Ousmane Sonko am na ñetti dossier mais benn rek moo nekkoon ci Mamadou Seck léegi nag boobu nekkoon ci Mamadou Seck nag dafa da ko naroon woo mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi këram gisul ne am na lu mu ko ci war a mën a yóbboo kaso parce que non seulement viol bi ñuy wax ni certificat médical bi daf ko daf ko déchargé te amul fee maanaam loo xamante ni daal yoon may na ko mu mën ci sukkandiku ba yóbbu ko prison système bi loolu arrangé wu leen day yàq seen plan

donc ça veut dire ñoom seen plan moo doon Ousmane Sonko coûte que coûte dem prison ñu fexe ba demul wuy juge bi mu daal di ñu euh, créé foofu beneen délit ñu yóbbu ko gendarmerie fit après ñu jël dossier boobu noonu te bi ñu ko jëlee ci huitième cabinet dañ ko yóbbu ci premier cabinet mm. li tax ñu yóbbu ko foofu ce n'est pas par mm. hasard li tax ñu jëlee dossier bi huitième cabinet yóbbu ko premier cabinet ce n'est pas par hasard premier cabinet mm. voilà juge boo xamante ne état bi lu mu bëgg ci justice foofu lay jaar muy doyen des juges Samba Sall lu état bi bëgg ci dossier foofu lay jaar

parce que juge la boo xam ne lu état bëgg ci justice da koy am am na sax ñoo xamante ne ñun dañu naan sax di diw pion pion état bi la ci justice juge bi ñu jox dossier bi c'est vrai que c'est un juge qui a l'expérience des dossiers politiques xam na bu yàgg naa traité ay dossiers politiques yàgg naa traité ay dossiers fàttali woon naa fi dossiers yi nga xam ne jaar na ci loxoom yëpp Khalifa Sall ci moom la jaar Imam Ndaw ci moom la jaar Bamba Fall ak yu ni mel ba muy nekk dossier Thione ak euh, ñoom commissaire Keita commissaire ñaar yëpp ci mm, loxoom la jaaroon moo fi lancé woon mandat d'arrêt contre euh, euh, nga xamante ne ci doxinam à chaque fois li nga xamante ni moom moo la état bi bëgg rek loolu moo li nga xam ne moom mooy moom lay appliqué lu réquisitoire procureur wax rek à chaque fois loolu la ñuy appliqué donc moo tax yenn dossiers yi ni ñu koy traité man moo tax man le fait que ñu yóbbu ko fa daloo sama xel te njortu naa ni li tax ñu yóbbu ko fa dafa am li ñu bëgg li ñu li ñu li ñu naam euh, bëgg dañoo bëgg mu am moo tax ñu yóbbu fa dossier boobu gis nga damay faral di wax ni justice Sénégal tey bu yàqoo le duo doyen des juges bi ñu fi nekk nii ñoo ko yàq parce que gis nga avant doyen des juges bi di fi nekk Mao Sémou Diouf moo fi nekkoon kooku lu état bëggoon a bëgg day xool ndax li jaadu na waaw wala déet bu jaaduwul mu mu weñ loxo état ba da ci doon jàppan am jàppante yu métti doon jox digganteem ak état ñi ngi fàttaliku am na ñu bëri ñoo xamante ni état bëgg na mu yóbbu leen prison mu bañ ba tëdd mu jóge mu dem ñu tegge ko fa donc état bi daal à chaque fois bu ñu tegee koo xamante ni deful li ñu bëgg rek dañ la fay jëlee moom ba mu fa nekkee c'était la même chose procureur bi fi nekk fii Ousmane Diagne moo fa nekkoon avant moom avant Ousmane Diagne tam ci jamonoy Ousmane Diagne c'était la même chose bu bëggoon nañ ko fi tëjloo ay nit kaso mu bañ ba tëdd ci suuf bëggoon noonu ñu dem ci juge yi àtte ku ci joxe dogal boo xam ne arrangé wul état une décision défavorable à l'état du Sénégal dañ la fay jëlee sanctionné la juste bi tey loolu xam nga c'était prévisible ci euh, justice beeg ñi ni mel mais nos corps de défense quand tey au niveau de la gendarmerie tey y a du remous est-ce normal tey jii ñuy assister loolu bëgg euh, salfaañe li nga xamante ne moo di mythe bi amoon ci ces corps là. waaw xam nga euh, tey jii nii li nga xamante ni moom moo parce boo lire lettre de démission gis ne énuméré na clairement raison yi nga xam ne moom moo ko poussé mu démissionner donc. puisque moom dañ ko exposé comme li daloon enquêteurs yi defoon dossier Thione Seck rek seen tour dafa génn ñu exposé leen mu demandé à ce ñu protéger ko vraiment état bi am na taxawaay boo xam ne moom la waroon taxawoo ñi nga xam ñoom ñooy takk der yi nga xamante ne ñoom ñoo fóote woo ci police judiciaire ñi def enquêtes yi ak ñu ni mel parce que PV bi génn na gis nañ moom tur capitaine Touré moom moo defoon enquête yu ci bëri ñu ci bëri moom moo leen déglu dem na ba kaaraangeem moyetu ko vraiment mu continuer di euh, évoluer noonu mu sàkku ci état bi pour que ñu assurer sécurité mais gis nañ ne lu taxawaay boobu loolu lépp amu ci moom nag mu ne gis ne balaa muy euh, sacrifier njabootam ak yooyu noonu du ko ci fekk mu moo tax mu démissionné donc l'état du Sénégal avait l'obligation vraiment d'assurer la sécurité des personnes et des biens rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci justice rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy féetewoo di def euh, li nga xamante ne moom mooy enquêtes yi parce que bu ñu leen di exposer de la sorte man parrain saa sax dama ci fas di waxtaan ak yenn journalistes yi